الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imam Abdou Aziz Ndiaye bu ساكري sacre Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey lundi 18 janvier 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 192 ci sunu jotaay bi passé pare woon nañ ak mbirum ndënkaan ñu annoncé woon ne tey dinañ ubbi buntu miraas kon audio bi incha allah dañ ko fas yéeneel jagleel introduction wu miraas suñu audio bi introduction la maanaam ubbi la li ñuy njëkk a fàttali mbokk yi mooy ne te mu nekk loo xam ne jullit bu nekk war nga ko di ko fàttaliku mooy ne miiraas mbirum borom bi la allah subhanahu wa taala jullit bi amu ci amu ci xalaat dafay appliquer li nga xam ne rek moom la borom bi tëral miiraas borom bi borom bi rek leen na ko bam bam ba mu jeex déjà borom bi ci suuratu nisa mooy surat numéro 4 ñu fàttali ko ca aaya numéro 11 12 ak ci aaya yi borom bi allah subhanahu wa wax na ku génn àddina kan moo lay donn ak ñaata lay am loolu mbokk yi borom bi rek la na ko bu yàgg yàgg yàgg ki génn àddina kan moo lay donn ñi lay donn ku ci nekk ñaata lay am loolu moom xalaas jeex na aaya yi ma wax nag mbokk yi muy aaya numéro 11 12 ak 176 bu sóotu nisa yaa xam da leen liir ci arab su nekkee ne arab nga jàng yaa xam da leen liir ci francais su nekkee ne français nga jàng wala ci beneen làkk wax ne moom moo jàng liir bi nga koy liir nii rek mbokk yi ah, doyul de pour nga nga xam miraas de doyul de pour nga peeg ko déedéet liir bi nii rek déedéet ca dëgg-dëgg maa ngi invité sax mbokk yi maa ngi invité ku nekk ci yéen nga ubbi sa kaamil dem liir aaya yi ma tudd nii nga gis nga gis na borom bi ni mu ko tëggee borom bi ni mu ko tëggee dafa dafa dafa dafa dafa yéeme ba tax na lecture bi kese rek lu tax nga comprendre lu tax nga comprendre de heureusement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem tax na mbir yi gën a jàppandi tax na dégg-dégg bi gën a jàppandi borom xam-xam yi ñëw ñoom itam seen wàll xóotal yaatal faram-fàcce dëgg la mbokk yi miraas du jafe la mbirum miraas lu jafe la lu compliqué la loolu moom foog ñu waxoon nag waaye lu doomu aadama mën a comprendre la lu doomu adama mun a comprendre la firne bi mooy amna ci julit yi amna ada ci doomu adama yi ci julit yi ñoo xam ñom ay spécialiste lañ dem nañ ba pekko lolou bi woné né <laughs> lu doomu adama mëna comprendre la deug la du ñepp mëna nek spécialiste miras dedet, du ñepp mëna nek spécialiste miras wante julit bu nek so defé yitte di nga mun a am dégg-dégg di nga mun a comprendre règle de base yi di nga mun a comprendre règle de base yi maanaam atte yi nga xam ne ñooy def fondation wu miraas atte yi nga xam ne ñooy tax nga mun a tontu ci laaj yi nga xam ne dinaa leen indi mbokk yi laaj yooyu yan laaj la laaj bu njëkk bi mooy kan moo dul donn laaju ñaareel bi kan mooy donn kat moo am droit donn ñetteel bi ñi nga xam ne dañuy donn lan mooy seen paar ñeenteel bi ñooñu di doon ba am part kañ la seen kañ la seen part di changé kañ la ñuy jóge ci part nangam dem ci beneen part kañ la ñuy jóge ci paar bi dem ci beneen part juróomeelu laaj bi ñi nga xam ne dañuy doon. naka lañuy dàqante ci seen biir ndaxte am na ñoo xam ne suñ teewee dañuy dàq ñeneen am na ñoo xam ne suñ teewee am na ñeneen ñoo xam ne dootuñ mënatee bokk ci miraas bi ndaxte am na diw ak diw ak diw yu teew juróom-benneelu laaj bi mooy ñii donn ku ci nekk suñ xamee sa paar léegi séddale bi naka lay demee naka lañuy defee calcul bi mbokk yi laaj yi ñoo ñuy xaar laaj yi ci lañu war a tontu gis ne kon mbokk yi laaj yi bare na takku nañ loolu moo tax itamit miraas bi dinañu jël ay audio dinañu jël ay audio yu bare surtout que léegoog léeg dinañ def ay audio yu gàtt waaw léeg ay audio yu gàtt la ñuy def ngir rek dégg-dégg bi gën a jàppandi suñu waree def audio cinq minutes sax ñu def audio cinq minutes nga def audio 4 minutes sax ñu def audio 4 minutes bañ rek bugg rek mbir yi mbir yi dégg-dégg bi gën a yomb kon mbokk yi dañuy ànd rek def tepp tepp tepp tepp bañ a yàkkamti léegi nag mbokk yi héritage maanaam miraas laataa ñu koy def dafa am ay ay ay mbir yu ñu war a régler avant dafa am ay frais dafa am ay frais yu ñu war a génnee ci alal lu ki génn àddina laataa ñu jublu ci miraas bi dafa am ay frais prioritaires yoo xam ne war nañ koo génnee bi jiitu mooy jëm ci frais yi nga xam ne mooy laal mbirum dëj bi nga mbokk yi kon nit normalement moo war a dëj boppam donc daggan nañu jël ci alalam bi mu fi bàyyi daal di dal di daal di régler problème mu dëj bi su ko mbokk yi defee ah alhamdulilah mais dagan na ñu jël ci alal ji ñu fi bàyyi pour mu pour moom mu dëj boppam ci alalu boppam loolu charia na ko ci yoon nag euh, frais yi warul nekk ay frais yu bare ndaxte su nekkee ne dañ topp sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam frais yi du bare parce que lii faral di tax frais yi di bare frais wu dëj mooy togg yi ñu fay togg ay ñetti fan ñuy togg loolu la alors que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ne kër gi nga xam ne dafa am dëj bu fa bu fa bu fa cin tàkk gis nga dëkkandoo yi ñooy indi ay seen añ ak seen ay reer pour gan yi waaye kër ga ci boppam cin waru fa tàkk kon ji mbokk yi suñ toppee sunu yonent bi rek frais frais wu dëj bi du bare du génn ay càngaay du génn ñi sang du génn ci ñi nga xam ne ñooy gas ak suul donc mu du bare donc frais yooyu moom ala kulli xaal kon euh, charia prévoir na que dañ dañuy di génnee ci alal ji ñaareelu ñaareelu frais yi nga xam ne dañu war a génne ci alal ji mooy mooy bor yi bor yi suñu xamee waaye ji génn àddina ñan la yoral ci xaalis montant bi ñaata la ñu calculer ko dañ koy génne ci alal ji mu ñaareelu frais yi ñetteelu frais yi muy ndënkaan yi bu ñu fàtte ndënkaan yi alal ji jimmee diw joxaleen ma ko nangam du joxaleen ma ko nangam mais yooyu ñu fàttali ni rek warul dépasser ñetteelu xaaj bi mais yooyu tamit dañuy di génne kon muy ñetti type de frais yoo xam ne mooy muy ñetti ay dépenses yoo xam ne moom foog ñu teg leen de côté laataay ñuy xam ñaata la ñuy def miraas mooy frais jëm ci dëj bi bor yi ak ndënkaan yi yooyu dañ koy génne su ñeen génnee nag li des nag loolu mbokk yi moom lañ ñuy séddale loolu lañuy def miraas mbokk yi li lañ indi woon tey pour ubbi buntu miraas suñ su dajawaatee incha allah ñu dugg nag ci mbir mi ñu waxtaanee incha allah ñi nga xam ne ñoom amuñ droit ci miraas mi ñi nga xam ne ñoom duñu donn incha allah ñooñu lañ ñooñu lañ bëgg a jagleel sunu audio bi di ñëw incha allah yal ci yàlla yóbbu ba jàmm. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم